الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم الحمد لله رب العالمين خالق البرية مرسل الرياح والأمطار نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله وسلم على سيد البشر سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين وكل من تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk jullit yi ci jullit yi ci taalibe yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentam nit yi ci seytaane ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci daje bi ndax bépp daje boo xam ne yàllaa ko sos di daje lislaam am nañ yaakaar ci ne képp koo xam ne jóg nga ak sa tànk jëm ca jéego boo jéggi bi ngay ñëw bi ngay dellu yépp ay tuyaaba ak i may ak i jéggal lay doon yomal xiyaam yàlla nañu ko suñu borom defal bañ koo xañ kenn ku fi ñëw doomu aadama yi nag ñu ngi rawante ci yéene ak ci jëf sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom tabaraka wa taala dafa ne yowmal qiyaam dugg leen àjjana ci sama yërmande ngeen séddoo ko ci seeni jëf kon jëmm ju nekk sa jëf ak sa yéene mooy réyal sa wàll ci àjjana moo koy kaweel moo lay jox nguur gu nguur kaweewul su borom mu bind àdduna bind barsàq bind alaxira barsàq nekk diggante àdduna ak alaxira te li gën a bari ci mbindeef yi barsàq la ñuy gën a yàgg ci àdduna ndax barsàq ba nga tàmbali ba dee xewee di yem bis bu ñu attee jaam yi ci bis boo xam ne fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sanatin bis boo xam ne yàggaayam juróom fukki junni at la ci taxawaay boo xam ne garab mënu koo taxaw lenn lu yàlla bind kàttan lan la mënuloo koo taxaw bu keroogee jaam ñi di ko taxaw ci nameelug suñu boroom ak dogalam bis boobu li muy yàgg ak li muy tiis ñu faral koo nekk li di ko faral la waxtaane muy doy waat lépp am nañu ko suñu boroom di fegal gis nañ ci xaddiis bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne gaa ñi nga xam ne dañoo soppante ngir yàlla te dara taxul lu dul yàlla yàlla donga leen boole bëgg yàlla ki bëgg yàlla ngeen boole seeni xol daje def seen bopp benn yàlla di la tax a jóg di la tax a jekki di la tax a jëf di la tax a bàyyi nga àttana jóge fii jëm fu sori ngir koo xam ne da ngeen a seq yàlla nga yaakaar ne boo fa demee ziyaare ko am fa njëggal wala barke wala nga dolli ko fa xam-xam ci lislaam nee na bu keroogee ñooñu suñu borom daf leen di dajale ci bërëb di leen beer ndeel ci xeeti teraanga ba bu ñu fa jógee dañuy laajte bis penc bu yàgg bi ñuy wax kañ la ñu ne leen weesu na jaar leen fii ngeen dem àjjana yàlla na ci suñu borom boole suñu borom bind àdduna ak barsax bind àllaaxira bind doomu aadama bind malaayika bind jinne bind ndoxteef bind luy naaw lenn lu ci nekk xekkam bi tax mu bind ko ak benn benn bu ci nekk fam la nar a jaarale di loo xam ne ci azal ba bindagul dara la ko tëraloon muy plan boo xam ne dara du ca randu dara du ca fanqu dara du ca yokku dara du ca wàññi ko lim bind lépp nag lim ci gën a fokk fonk bokk ci doomu aadama ndax ki tax mu bind mbindeef yi doomu aadama la ci doomu aadama yi la suñu borom sàkk xarit ci la sàkk soppee ci la sàkk ki mu tànn wax ak moom ci la sàkk ñi leen di wuutu ci kër kaw suuf kon doomu aadama mbirum rëy la ñetti mbindeef yi suñu borom bind ñetti xeeti mbindeef yi kii daf ko bind ci leer jox ko roo mu di malaayika bind kii ci safara def ca roo mu di jinne bind kii ci ban def ca roo mu di doomu aadama kon ñett ñi leer safara ban ci la suñu borom bind ñu dee fii xam ngeen ne leer dara du ko rax dara luy gàkk wala muy tilim du ko rax nañ ko bindee woon lay delloo bu yemal xiyaamee fa ko suñu borom jëme tax xamul bànneex du mer amul intérêt loolu mooy malaayika jinne ci safara lañ ko bind safara xam ngeen dana am tàkk-tàkk dana am saxaar saxaar mooy mis mooy misaalum topp bànneex mooy misaalum mer yooyu lenn lu ci nekk dana arak mbindeef kon jinne boole ñaar yooyu lu néew ci ñoom tuub la ci gën a bari des di ay yéefir doomu adama mu bind ci ban ngir natt ko mu def ci moom ci biiram loo xam ne bu ko doomu aadama bi toppee mën na ëpp doole fuuf lëndamaayu ban bi ak diisaayam ak tëxam ak ñuulaayam ba mu fekki malaayika yi mel na malaayika yi wala mu am malaayika yu mu féete kaw bu fekkee nag topp na li nga xam ne moo jóge ci ban bi te mooy yaram li yaram di aajo woo ku nekk xam na ko waaye ëppal baaxu ci lu ci nekk dañ ko sàkkal fu mu war a yem ak luy tax nit ki jëfandikoo ko ba fu mu war a yem mu di li ma waxoon ci jinne bànneex ak mer boole ci seytaane mi ngemb añaane ko ba ko suñu borom bindee mu jaamu yàlla ay junni junni at mu bind benn mbindeef ci ban bu lëndëm bi ne ko sujootal ci moom mu defoon ne moo gën ki ñu tabax ci ban bu yeggul rek jaamoogul yàlla te moom mu jaamu yàlla ay junni junni at saxar yi ñu ko bindee woon saxar si ànd ci ak tàngaay wi yóbbe ko rëy ak gis boppam mu lànk bañ a sujjóot suñ borom alak ko fekk ban boobu ñu tëm di ko ci sujjóotloo ci tax ñu bind mbindeef yaa ngi ci biir mu di rasulullah sallallahu alayhi wasallam leeram a ngi ci ñu ngeen ko yàgg a dégge di toxu ci biir ay doom ak i sëtam boobu muy agsi ci abdullah ibn abdul muttalib boobu muy dikk àdduna suñu borom doomu aadama bi mu gën a fonk ci lim bind du ñëpp waaye ñenn ci ñoom tax mu notal ko lépp lim bind ci àdduna notal ko jant bi muy fenk di so di dundal di tàngal di leeral di ñoral nga xam ne mënu la ñàkk ci dundu doomu aadama bu amul woon doomu aadama du dund kon du dund mukk notal ko ngelaw mu di lum aajowoo notal ko biddiw yi notal ko lépp lépp lu mu bind ci diggante sunu asamaan yi ñun sunuy asamaan ñun bu ñu waxee asamaan loolu sax day gudd ndax asamaan dafa ëmb lu bari te kenn xamul nu mu toll kenn xamul na mu demee waaye asamaan adduna si sa doomu aadama suñu borom notal notal ko li ci nekk lépp ci service am ñu koy faral di waxee nga xam ne suuf si dafa mel ne bateau bu déqi jëm fu sori wala bu déqi Amérique jëm Australie ñu prévoir ñi fiy judd ñépp ak la ñuy toll li leen di dundal lépp di saxe ci biir bato bi di ci màgge prévoir tawat yépp ak lu ci nekk tawat bi ci nekk la koy faj su ñu demee ba seenu dundin soppiku la ñuy aajowoo ba wacc lañ weesu woon lépp suñu borom prévoir ko ci biir bato bi ba muy àgg muy ba yomal xiyaam gis ngeen doomu aadama ñu leen suñu borom joxe man-man ñu am ay man-man yu bari di ko jëfandikoo di dem seeti weer yi ba ñëw ne dañuy seeti mars ba yóbbu fa dara te loolu di lu tuuti ci li suñu borom bind di lu tuuti tuuti bu mel ne magasin bu fees ak saaku yi fëriñ ñu fab ca ñetti pepp xam ngeen ne système solaire bi sax mënuñoo xalaat xam ni mu toll te ay milliards système mooy def benn galaxie te galaxie yi kenn xamul ñaata milliards la xam ne kon doomu aadama fu mu jóge ba fa mu àgg lu fexem bari bari lu adduna yàgg yàgg yàgg ñuy eewante di découvrir def li ñuy def lépp doomu dara dara dara dara ci li gën a tuuti ci la yàlla bind bu ko loolu war mukk nekk ba mu fàtte boromam suñu borom nag bi mu bindee doomu aadama may ko kàttan googu ci kaw xel boole ci moom lépp lu mu bind mu fab ca def ci doomu aadama booba la ko jox responsabilité boo xam ne rëy na rëy bopp nelaw waratu ko lu dul daruri contrainte bànneexu waratu ko dara waratu ko lu dul fu mu toll xelam ne ci boromam te xam ne responsabilité bu rëy da suñu borom teg ci mbaggam yi yónni ay yonent ñu xamal ko li suñu borom bëgg li mu santaane ak li mu tere xamal ko li nga xam ne aayul te aajo woone ko te dara nekkul ci jëfandikoo ko waaye lu ci nekk dañu sàkkal ko limite bu muy yëm doomu adama ñëw ci adduna ñii nangu jaamu seen borom texe ñii gàntu ñu ne woon fasante woon ak suñu borom ca ba roo yi nekkee ci gannaawu aadama te bindaguñu doomu aadama seen jëmm yi ñu fàtte ko gis adduna fàtte loola fàtte woon yére woowu xam daañu leen ko laaj ëllëg ñu topp seen bakkan ak seen bànneex ak seen xel di yooyu rek nag su borom bi mu sàkkalee nit xel ngir xel nekk ilimaanam ci mbiri àdduna mu sàkkal ko xol xol di liy taatan liy war a yërmande yàlla xel war a dimbalanteeg xol li tax su su borom togg doomu aadama jëf te togg ko bàyyi ma xel mi mu ko jox xel nag daf koo war a leeralal li nga xam ne moom la wax yu indi waaye waru koo jiital fab xol bi nga xam ne mooy bërëbu ngëm topp tofal ko ca dafa war a jiital ngëm tofal ca nag xel xel di ko leeralal li mu gëm lan la li mu gëm na mu koy toppee lan la la mu ciy jële lan la bu ko deful ëllëg la koy dal lan la ndax xelay jàng xel mooy jàng mooy xam waaye nag suñu borom bu mu bindee doomu aadama yi wuutali leen amul kenn ku mu teg ci saw loos loo xam ne attanoo ko amul kenn nit koo xam ne du xamal na la li la yàqal tey sa ëllëg diine yàgg fee ñëw aadama mooy nit ki njëkk nit ki njëkk ci li ñu tuddee aadama yu yoone xëy na suuf si ay xeeti nit yu kenn xamul lu ñu doon jiif nañ fi ay millions yu millions yu at ak yeneen ñu mbindeef yoo xam ne du ñu doomu aadama bët bi aadama yi ñëw xam ngeen ni malaayka yi bisu borom naan dama bëgg a wàcce ku ma taxawal ci kaw suuf dañu ne ko da nga fi indi koo xam ne day tuur deret di moy di jàdd di tooñ booba dañoo xalaat nit ña jiitu woon nit ña jiitu woon di am seen xel matul kenn toggu leen jëf ba mu ñuy ñëw ci homo sapiens ñuy wax bi mu ñuy agsi ci suñu borom nag war a sàkk xalifa ci kaw suuf aadama ñooñu kenn si ñooñu juru ko ñooñu jeex nañu raax nañ kenn gisatu leen aadama la fi ay sëtam des sëtam yooyu nag nga xam ne ñoo nangu woon amaanatu diini ñoo fi nekk ñu teg ko ci seeni mbagg diine ji mujj ñëw nga xam ne dafa boole li ñu yàqul woon ci diine yépp ndax diine xam ngeen doomu aadama ku néew kàttan la ku néew xel la ku néew xam-xam la bu diine ji yàggee ñu dugal ci lu ci bokkul yokk ci wàññi ci benn ci seeni bànneex wala ci seeni ñàkk xam wala yàgg bu mu yàgg ba agsi ci jamono ji Muhammad sallallahu alayhi wasallam waree ñëw ndax xam ngeen ne yonent bu dem bu yàggee tuuti ñu war a yónni beneen yonent ndax lam jàngale woon yàq nañ ko fàtte nañ ko yokk nañ ci wàññi ci waaye yonent bu ci nekk bu ñu yónnee beneen sa mission jeex na kenn yónneetu la ci ñi fi nekk yonent bi ñëw la ñu yónni ci ñi fi nekk ku ko gëmul boo gëmoon yeneen yonent yi weesu yépp it doo texe bu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accès lépp loo xam ne dañul di war doomu aadama mu ngi ci biir lislaam lépp loo xam ne nit ñu njëkk ne attanuñ ko woon seen xam-xam àggu ci woon wala seen civilisation wala seen dundin xeetu wala ñoom wàcc nañ ko fële waaye lépp loo xam ne mooy xet li mbindee fi léegi ba ba saa di taxaw lépp lañ prévoir ci lislaam lislaam ñëw na kon di diine ji nga xam ne mooy diine ji mat sëkk sëkk sëkk sëkk suñu borom ne wa man yabtaxi xayra islaami diinan falan yuqbala min képp ku dikke suñu borom yowmal xiyaam ak jenn diine ji dul lislaam suñu borom du ko nangu mukk ndax diine ju ñëw rek day mën suuxal yi weesu ndax suñu borom du bàyyi doomu aadama yu mukk bañ a yónni ci ñoom yonent bañ leen a wan dëgg bañ leen a xamal lu leen di texeel lislaam nag li mu gën a mate ci diine yi mooy bàyyiwul àdduna bàyyiwul àllaaxira dafa àtt nit ki ci ba mu juddoo bu muy gone ba ba muy mag ba ba muy màggat ba ba mu fiy jóge doomu aadama amul benn jëfam boo tàllalee sa tànk wala nga bank ko lu dul ne bindal nañ la njëndi ca ajjana wala ca safara waaye bind yooyu lu ñuy far la ci boo defee lu ko war a far boo tàllalee sa tànk ma ne ak boo bankee sa tànk lan la ñuy dëgg ba loolu ñu mën la ci bindal lu baax wala lu bon lam la fekk nga di ko def bu dee lu baax bépp yëngu boo yëngu bépp xefu bët boo xam daañu ko bind bu fekkee ne yaa ngi ci lu bon it nag naka loolu yëngu boo yëngu sa cër bu yëngu bind nañ ko feeg defuloo lu ko far ma nga ñu bàyyi fa te dana bokk ca la ñuy peesewaale ëllëg kon nag gannaaw doomu aadama moom bi mu ñëwee ci àdduna bu mu fi jógee lépp mu la ñu àtte fu ci nekk suñu borom nee na ko defee ko nii jaaree ko nii bàyyil lii jàppal lii ba lépp mat fu mu layoo ñu yey ko ndax bu mënul lépp am na la mu mën la mu mën bu defee lépp wàcc na doomu aadama yi ci àdduna bari na lu ñu aajowoo nit ki li mu aajowoo lépp mënu koo defal boppam suñu borom daal di wutale xel yi wutale xarala yi wutale bëgg-bëgg yi ak jub jub yi ñii di bay ñii di sàmm ñii di napp ñii amee seeni usine ñii di liggéey ay oto ñii liggéey lu mu doon rek ba nga xam ne lépp lu doom aadama aajowoo am na ku ko yàlla mën loo xëy ko ca mu di ko def ba duñ manqué dara sàkkit ñoo xam ne daf leen a sas buñ ne falaw laa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuna kuréel bu ci nekk sant naa ni ma sante kenn ku ci nekk jàngi métier moo xam ne doomu aadama yi daañu ko aajo woo fàttewul diine ji ci la tàmbalee falaw laa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din kuréel bu ci nekk na am ñu ca soqi koo dem jàngi diine bu kenn jàngiwul diine ñëpp bàkkaar dem safara ndax duñ xam diine bu amee nag ñu dem soqi ko dem jàngi ko mu wàcc ñëpp ña ca des ña ca des sañ a dem ci seen yeneen i soxla ak seen yeneen i liggéey ñooñu nag ñaari devoir rek am faral dañ koy waxtaane ñu ko li yatafaqahu fi diine ñu ngir ñu dégg diine xam ko dëgg-dëgg wala ñun diru xaw moomu ida rajo ilayhim ngir bu ñu delloo yeete képp koo xam ne jàng nga ba xam dara ci lislaam amuloo sañ-sañu ñu woola ci nga bañ ndax suñu borom daf ci tëkku innal ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnaasi fil kitaabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'inuna képp koo xam ne yaa ngi nëbb benn xam-xam ci diine ñu laaj la ko waxuloo ko ñooñu su kooka suñu borom rëbb na ko te mooy rëbbe ñëpp daañu ko rëbb bu nga xamee nag loolu dafa am nga xam ne kon suñu borom wàccoo naa jaam ñi lépp mat na mu sàkk ay jaam yoo xam ne xam nañu diine ba xam liñ ci war a xam lépp bu ñu amul kenn ko xam lépp ñu mott lente sàkk ni mu ko sàkkee pour ñu xam diine ji ci zahir xam war koo xamit ci baatu mu sàkk itam ay xaritam ni ma ko waxee woon ci biir doomu aadama yi sàkk ñi mu may kenn ku nekk fa sa may féete may yi ëppante wuutante naka noonu la tawfiq wuute tawfiq nit ñi dañ ko ëppalante li ñuy wax luy tawfiq tawfiq mooy suñu borom dëppale la ak la gën xanaa bu la neexee nga ne chance bu la neexee nga ne réussite chance mooy ndax ñaari ngëneel dafa am fadlu ixtisaasin wa fadlu kës jiyu alfadlul kës bii mooy ngëneel li nga xam ne yaa sonn sabab lu ko ba am ko loolu képp ku dulub yonent sa texe fadlu kës bi nga ca alfadlu ixtisaas yi mooy ngëneel loo xam ne suñu borom daf la koo yéen rek defal la ko ni ki tey yombalal bu mu la yombalal nga juddoo ci réewum diine ci dëkku diine ci këru diine suñu borom boole laak nga xam way texe ñoo xam ne dañuy joxe ak texe dañuy texeel chance mënu koo wees mu wóor la ne ne am na béréb yoo xam ne boo fa jógee bu adduna bépp weddi woon lislaam it nga xam ne dañoo jaar ca yoon wa nga xam ne duñ ko gis mukk rek ak lu ñu am am xel lu ñu am am xam-xam lu ñu farlu farlu lu ñu yewu yewu mu wóor la ne yow tawfiq nga am fi nga juddoo moo la ko may ak fi nga màgg ak fi nga yaroo ak fi ngay jaar kon nga xam ne diine li ñuy wax tawfiq moo ci nekk farlu nit am na ci loo xam ne farlu nit mayu ko ko xelam mu rëy mayu ko ko xam-xamam bu rëy mayu ko ko suñu borom moo ko yëkkati di ko jox ndax xam ngeen ne am na ñoo xam ne ba ñu juddoogul leneen suñu borom tibbaloon ay cër tegal leen ko fi ñu mel ne que yonent yi ak ñi leen donn ak arifoona billaay ak siddiqoona yi waaye lu mu ci mën a doon dafa am lu muy àndal nit ki bu ñëwee àdduna fokk mu sonn ndegam yonent yi ñooy sonn te ku la gën a jege yàlla moo la ëpp coono moo la gën a sonn lu tax yàlla boo ko mosee dara dootu saf ci yow lépp day soof lépp day naqari lu dul yàlla rek lu mu ci doon nag nit ki tadrijiyan la cay dem maanaam ndax progressivement ndànk-ndànk rek nit ki jàng alxuraan ni nga xamee ne mënul tëb jàngaloo alxuraan yépp mokkal ko tari kaamil bi day tàmbalee ci ñetti xaraf baa siin mim lépp doomu aadama noonu la demee gis ngeen tàggat yi ñuy wax muy tàggat yaram muy tàggat xel muy tàggat xol muy tàggat roo tàggat bu mu mën a doon ndànk-ndànk la ko doomu aadama bii defee muy entraînement ba moom muy àgg foo xam ne dana ci mën a jëfe loo xam ne dañuy defe ne leneen la lu dul tàggat gi rek bu sàkk nag li ñuy wax tawazun mooy équilibrage laysa minna man taraka dunyaahu li axiratihi bokkul ci nun ki bàyyi addunaam yépp ngir àllaaxiraam ki bàyyi àllaaxiraam ngir addunaam nag ay waxam taxul ñuy wax waaye ki bàyyi adduna lépp ak warugar yi ko suñu borom teg ak toppatoo njaboot ni mu amee yool ak jubal jubbanti nit ni mu amee yool ak jëriñ sa mbokk doomu aadama ni mu amee yool nga dëddu bàyyi loolu lépp nekk ca biir dojee di jaamu suñu borom guddeeg bëccëg ba faatu kii jaamu sama borom ne moom di ko fàttaliku ne moom jëriñ jaam ñi moo ko ëpp daraja fa yàlla téeméeri yoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suñu borom tabaraka wa taala nee na annaasu iyaalullah fa ahabuhum ilayhi anfaahum li iyaalihi mbindeef yépp njabootu yàlla lañu ki gënal yàlla nag ci njabootam gi mooy ki ci gën ci njabootam gi bi nga xamee nag adduna noonu la def xam ne suñu borom daanaka layoo naa ñun bayayinu xam li ñu war xam yépp wane nañu ko moo xam nu nangu ko wala nu bañ koo nangu nu seetlu ko wala jaraluñu dara nu topp suñuy itte mu gënal ñu ko ñi ko gëm war a waaj def li ñuy wax waajtaay li ñuy wax préparer préparer boppam ngir ëllëg ju umpe ngir ëllëg ju aju ci lu umpe mu dina meelu suñu borom muy ëllëg yoo xam ne leer da la ne la suñu borom bëgg lépp lott nga ci def ko la nga mën lépp sax defuloo genn wàll ba lu tax say bakkan sa bànneex sa àdduna say noon yi nga sàkk te yaa ko sabab lu muy say mbañeel say bëgg-bëgg sa diggat say moroomi doomu aadama doomu aadama bu kon war a seet na muy dunde mu war a tànn ñi muy diggaaleel ñi muy àndal ñi muy toogal ñi muy waxal seet fi muy dolli koo ak fi muy wàññi koo seet fa koy fa nga xam ne dana jëriñ dara ci xolam ak fa nga xam ne day wàññi dara ci xolam di seet li ko yàlla ak ëllëgam ak fa mu ko dul fàttalikoo ndax nit kat su borom dafa bind ci moom tàmm li nga saxoo ba tàmm ko bàyyi ko jafe na lool li tubaab yooyu la bi est une seconde nature arab dafa ne man shabba ala shay'in shaba alayhi man shabba ala shay'in shaba shaba alayhi képp ku nekk ci dara ba màgg di màgg ca ngay bijaawe maanaam ca ngay màggate kon nu seet sunu ndaw ndaw gi nga xam ne waxtaan wi li ci ëpp ci la jëm fi la tàmbalee fi lay mujje li ci war ci ay warugar liñ ci war a wattandiku melaw liñ ci war a jéem a sàkkul suñu bopp ak nañ koy defe li nga xam ne ci lañ war a bàyyi suñuy xel ngir lu mën a texe ëllëg dañ ne nit ñetti xaaj yu rekk la xaaj bu njëkk bi aajowowuñu mu leen aajowowuñu yar aajowowuñu jàng ku leen yar ñu jub ku leen yarul ñu jub ku leen jàngal ñu xam ku leen jàngalul ñu xam mooy ñan mooy yonent yi alayhi salaatu wasalaam yonent ba mu nekk ci biiru ndeyam umpaleetul suñu borom booba la xamoon suñu borom ba li muy ndaw ba bañ koy yónni mosul kiiraay mosul dox digganteem ak boromam li mu am nekk du lu ñu fàggu dafay ñu ko yàlla bindee ni nga xamee nit ki bu ko yàlla bindee mu gudd wala mu gàtt kenn ni mënu koo soppi yonent noonu la mel buñ ko rayoon lakk ko ba mu nekk këriñ wala doom ñu jëri ko it ku am basiira am déggu baatin da nga dégg doom bi bi muy naaw naan laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaareelu xaaj yi mooy ki nga xam ne buñ ko yaree jàngal ko mu texe jàng ci boppam daanu ci dellu si ndax ci biir yar la dugg ndax jàng dafa am loo xam ne ni ma ko waxee woon dafa war a am ñu ko def dellu si yee ñu ci des waar leen def ci kem kàttanam ngir bu ëllëgee mu layoo xam-xam bi xam-xam bi yey ko mu dugg fu ko naqari waaye li nga xam ne moo moom la nit ki rek war a xam moom farata la njàng moomu nit ki bu bu rek dafa war a fab alluwa teg ci poojam wala mu war a fab téere ubbi tëral ci kanam mu borom xam-xam mu di ko jàngal njàng ak xam mane nañ ko lu nekk mu ngi aju ci itteewu nit ki ak maanaam bëgg-bëggam passion bu mu am ci diine ak ci yàlla rek la aju kon ñi gën a bari ci nit ñi mooy ñooy xaaj boobu waxtu woo xam ne yar nañ leen toppatoo leen ba ñuy xalal teg leen ci yoon benn ñu jàngal leen lu tuuti wala lu wala lu bari wala li ñu li ñu li mun la ñàkk rek li nga xam ne laazim la mooy lu nécessaire ñu jut texe ëllëg mën a texeel ñeneen jaam bi góor bi nga xam ne wala jigéen ji nga xam ne dafa tàmbalee toqi doomam ci bi mu commencé ràññee yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Abbas bokk naa ak moom ñam di xale bu tuuti bu xamagul lu bari mu ñëndeel loxoom ci ndab li mu ne ko kul mimma yalika wa sàmmillah tabaraka wa taala xam nañ ne boobu yar jotagul waaye foofa nga koy tàmbalee lekkal tàmbaleel ci sa kanam yemal ci sa kanam te bala ngay lekk na nga tudd yàlla xam ngeen ne yar kon mën na jiitu xel gis ngeen tubaab yi ci France ak yooyu mayo yi nga laxasa liir yi ngir seeni cër jub ba bindkat yi di ko critiquer ba ñu dem ba ne weesu nañ ko ba bàyyi ko la ca amoon ñàkk nañu ko waaye dafay wane ne rek nit fa mu tàmbalee lañ ko war a commencer ittewoo di dugal ci xelam di dugal ci xolam di ko tàmmaloo di ko meloloo meloo gën te moo koy tax a texe ëllëg bu xaaj boobu weesoo mooy ñi gën a bari ci nit ñi xaaj bi mujj moom it lu néew la mooy li nga xam ne moo ñoo tax arab naan min taazibi tahzibu zibi li yahtadi wallaay coono la bu amul njëriñ ngay jéem a yar bukki ngir mu jub mooy nit ñi nga xam ne yar ak bañ a yar la muy la ñemale yàlla bind na leen ci aynaat rek seen bopp bi dara du ci dugg seytaane not na leen ba mën leen benn ñu judduwaale ko wala ñu dem ba mu dab leen ci càggante ak réer ak jaxasoo bu bon xam ne kenn mënalatu leen dara dara dara dara yërmande yàlla rek yërmande yàlla nag mën ñu ko sàkkal bunt bu mu war a jaar wala fu mu xaje fu mu xajul na ko nu neexi borom la koy def la koy joxe jaam bi ndax suñu borom sàkk na ay mbaa yàlla yoo xam ne bu ñu juddoogul baal na leen seetul seen dara kenn waru caa compter ku ca compter rek da nga am mbett yowmal xiyam loolu moo tax ñu ne wa xayrul qurubi arjaaha lil xayri wa xayrul qurubi awaaha lil xayri wa arjal qurubi lil xayri baal mi sabaq ilay charu xol bi gën ci xol yi bi xol bi ñu gën a yaakaar yiw ak texe dugg ci mooy xol bi nga xam ne musiba jiituwu ci ay jiituwu ci kéefar jiituwu ci caay caay jiituwu ci càggante gu métti jiituwu ci te mooy xale yi tuuti yi jikko ji ngay saxal ci moom muy mel ne boyaade ci kawu doj da ngaa gas bind ci xeer wi du dañ mën nga toj xeer wi de waaye mënuloo koy faate ba mu fat njàng mag nag day àgg foo nga xam ne ittey adduna yi song na ko ak xalaat yi talatul dara lu mu jàng boo léegi mu fàtte ko ndax lii mu jàng ci saa si leneen day ñëw tegu ci leneen ñëw tegu ci leneen ñëw tegu ci leneen ñëw tegu ci ba xamatul jàngoon na wala déet kooku mooy mbindum ndox boo weesoo rek mu raaf ko kon dañu war a njëkkante seytaane dañu war a njëkkanteeg moom xale yi tuuti yi xale yi dañoo war a njëkkanteeg seytaane ci ñoom seen xol yi ñu def ci yiw bu ko defee bu ci saxee ay dootu mën a dugg si ñu ne nag gannaaw xol boobu nga xam ne yiwa ci jiitu ay mooy xol bi gën a mën a téye yiw xol bi gën a mën a téye yiw mooy xol boobu te xol bi ñu gën a yaakaar yiw ba tey mooy xol boobu nga xam ne nag ay jiitu wu ci suñu borom nag dana sàkk ay jaam yoo xam ne daf leen a yoon xëy na bind leen ngir àjjana ñu nekk ci lu dëng ba mu yàgg ba tu wala mën nañ dem ba tuuti dese leen ci seen dund ñu wëlbatiku gis nañ ay tubaab yoo xam ne dañoo nekk ci lu nekk ñu ji tuub tuub dugg ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne xuliqa an-naas xunafaa fabtaalatuhum ash-shayaatiin suñu borom dafa bind nit ñi ku ci nekk ñëw ci adduna ak xol bu set wecc bu leer ñu ne dafa mel ne tame ay bën-bën yu weex ak bën-bën yu ñuul bu jaaree ci lu bon bën bën yu yu leer ya dal di sëkk lépp ñuul mooy reynul xal bi bu fekkee ne dañ koo jaarale ci ay baax baax wala mu nekk ci milieu boo xam ne ñu baax a fa nekk ñu yóbbaale ko tomb yu ñu yépp day effacé lépp leer lépp weex lépp set mu di aji texe faw kon li ñu tuddee al muassiratul ajnabiya way jeexital yi yiy jeexital ci doomu aadama daanu ko waxtaane lu mat a bàyyi xel la lu mat a seetlu la doomu aadama suñu borom daf ko bindee noo xam ne xol bi dara def ci dugg jeexital ci bu ci faralee dugg di ci faralee jeexital day gën a dëgër di gën a bari bu fekkente ne bu ci dara jeexitalee day daal di dem foo xam ne la jeexitaloon day daal di deñ daf koy raxas wala mu def lu ko raxas fi saa si xol bi du ñuul mukk bu ñàkk ay tomb yu tomb tomb yu ñuul yu ci des waaye fokk mu am ci leer lu ko texeel ndax doomu aadama boo gis ki am basira bu ko xoolee da nga gis benn haala haala ci arab mooy alo alo ci tubaab weer wi kii boobu koy wër léeg-léeg wala fi naan ko gëweel te mel day nekk benn cercle boo xam ne dafa am leer boo xam ne dafa am ay couleur doomu aadama bi ruuxam day feq feq yoo xam ne day wër boppam boo gisee fépp fu xaala boobu ñaawee wala fu amee ay ñuul ñuul wala ay wert wert mu ngi aju mu ngi jóge ci xolu doomu aadama bi ci kem ay caay-caayam kem ay ay ay sàgganteem waxtu woo xamee ne roox gi génn na ba dem barsax fu mu toll mu ngi fàttaliku fi mu jaaroon ci àdduna léeg-léeg dana dem ba du yëg ne sax génn gu mu ne àdduna bëgg-bëggam yi mu bëggoon mu ngi des ci moom def ay taasir ay jeexital ak yi mu ragaloon ak yi mu bañoon dana toog diir ba yooyu soggee dañ ci moom waaye lu koy dindi ñaan yu bari bu ko ñim bàyyi doo ñaanal di ko jéggalul wala ñu di ko sarxeel di ko wàccee alquran yooyu di wàññiku ba mu gën a yéeg xam ngeen ne ruux yi dafa xóot soxlawul te yaakaar naa ne tool la ci dugg foofu dafa xóot kattan gi gën a rëy te gën a mën a def lu dara dul dindi mooy ngëm al imaanu al imaanu raasix fi qalb ngëm bu sax ci xol dëgër wow ci mooy texe gu dara mënul dindi loolu jar na lu nekk li gën a bari ci nit ñi duñ ko judduwaale waaye daañ judduwaale iman maanaam xol bu set bu leer kon li mu fekk ci àdduna mooy ciy def li ci nekk waaye xol bi bu juddoo dara nekku ca dara dara dara nekku ca li ci nekk lépp dañ ko cay def bu fekkee ne ko am chance juddoo ci këru ay waliyu ak borom xam-xam yu maandu yu ragal yàlla dañ koy yóbbaale benn dañuy taatandu benn tomb bu ñuul du agsi ci moom li ci gën a bari day nekk waliyu du nekkul aarif wala siddiq dana nekk waliyu rek yem ca ndax benn xol boo xam ne amul benn tâche nga xam ne mooy texe bi gën a mat ci texe yi nga xam ne dara du manqué lu jafe-jafe-jafe la nit ki mën na ko bañ a judduwaale mën ko bañ a màggaale dem ba am ko waaye laaj na nag ay sacrifice yu mag yu rëy yu bari ak coono yu bari yoo muñ ak naqar ak loo bëgg bëgg ko bëgg bëgg ba mu gënal la lu bari nga muñ ko ngir yàlla wan ko gannaaw ak bépp boo xamee sa xol bi ragal nga ne nangam tàbbi na ci muy kàddu bu nit wax wala loo gis ak sa bët wala lu ñu def nga daal di auzu billahi mina shaytan rajim génn ci sa xel du tâche ba du am solo wala du ca nekk wala day daal di far dama dama ji nga xam ne nag wattu na xolam boobu ba amul tilim tilim yooyu mooy aji texe ji rooxam bu demee ba tàq moo gën a leer buddiw bu fàq boobu ñi mu romb loolu waxtaan nañ ko ay yoon roo gi buy dem sax roo yi muy romb daf leen di jëriñ xam ngeen ne roo yi dañoo jëriñante roo ya nekk ba tax mën nañoo jëriñanteeg yi nekk ci adduna yi nekk ci adduna mën nañoo jëriñanteeg yi nekk ba tax roo gu nekk ba tax roo gu nekk ci adduna jëriñ ko moom lu leer la ndax ki doon di ko jullee ak di ko ñaanal di ko jéggalul kon roo goo xam ne borom mu ngi dund ci adduna muy jëriñ borom roo goo xam ne tàggoo naag borom ba mu nga bër tax roo gu nekk bër tax mën na jëriñ roo gu nekk ci adduna loolu boo ko waxee ñi gëmul mbiru sëriñ ak wilaaya duñ ko ñu seen bopp waaye lu leer a leer lu dëggoo dëggoo dëggu la ku teg safara ma at ko waat ruu boo xam ne borom léegi mu saw fu yépp daje nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef yi ne ci àdduna te seen xol àgg ci set wecc wecc wecc wecc ba dara nekku ca ñu bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba yemale muñ ko dara dara dara ba mu gën a leen seen bopp gën a leen lépp ñu bari salaatu ala nabi daañu ko mën nañ ko gis jahran ci dul gént te sallallahu alayhi wasallam ku ko gis jahran ci dul gént weesu nga yàqule naka noonu ñu ko wuutu kon xam ngeen ne roo gu nekk bar sax dana jëriñ roo gu ne ci jamono di dund borom di dund da ngay ziyaare ndax roo yi dañuy xëccante ci kan bëggante di xëccante ci kem ñuroonte ay jikko di xëccante ci kem ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al mar'u ma man ahabba waa ji ki mu sopp lay àndal yowmal xiyaam kon sopp lu am solo la kon yow ngay dund nga sopp ci faatu nga sopp ko ngir yàlla ngir nu meloon wala ngeen niroo nga roy ko ci ay jikko muy sa sëriñ wala nga roy ko ci ay jikko niroo boobu ngeen niroo ci ay jikko dana xëccante roo xam gi gën a mën a texeel dana xëcc sa roo ba fóot ko moo xam yaa ngi ci adduna moo xam yaa ngi boo gisee ziar ñuy ziare ku fi jógee bàmmeel bi di ko ziar looloo ko waral ndax ni ma waxoon tànk ne roo gi day nemmi ko bàmmeel bi daf koy sopp ndax li fi jëmm ji nekk du ko sori dëgg la càqalikoo naa moom ak an nit ki buy nelaw rek la li ñu wax al jismu al asir yi mooy génn te buy génn dana wacc cokkoor boo xam ne mooy dox digganteem ak jëmm ji ba jëmm ji du dee waaye nag yëgatul dara du dégg li ñuy wax du dégg yëngu du wax xamatul dara mel na nekkul ci àdduna waaye nag boo koy laal roo gi di dellu si maanaam al jismul asiri mooy ruuxu xayawaanee bi xam ne kon dikk di ziare koo xam ne yaakaar nga ngëneelam nga dikk ci béréb bi lu ama am solo la lu ama am solo la ndax am na roo gi du fa sori ndax roo gi dafa ni ma waxoon ne day nam li mu tàmmoon ci àdduna ak fi mu béréb yi mu daan dem ci àdduna yi mu mii noonu ak mbokki ay xaritam ak yooyu kon da ngeen xam ne kon ziar bàmmeel am na njëriñ yu bare bare njëriñ li njëkk li mooy mu waar la nga xam ne xel fii nga jëm te lii mooy kër dëgg gi te xamaguloo kañ la nga xalaat sa bopp xam ne yaa ngi jëm si fii ak suuf si ni mu diise ñu suul la xam ne boo dundoon sax te suuluñu la rek toujours ma wax ko boo duggee ci pax mi rek doo mën a génnati ñaw nañ la ci perkaal doo am foo sukkandiku ba mën a jàppandiku bëstandiku génn ci bàmmeel bi waxumala ak nag ñu ñaw la noonu ci perkaal ba noppi suul la ba mu fees ñu jal dem wacc la fa fàtte la yaa yàlla rek malaayika yi laaj kon ziar bàmmeel dana fàttali nit ëllëg te fàttali ko dee mooy li gën a jëriñ jaamu yàlla fàttali ko dee boo ko dee faral la fàttali ko rek yu bari da nga ko ragal day jeexital ci xol jépp jëf ji fóot ruu day jeexital ci xol te luy jëriñ jullit la doomu aadama bi ba tax yonent ku rëy nattu la bu ngeen ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne ki gën a bari tiis ci jaam yi mooy yonent yi ñi ci topp mooy ñi gëm ci nit ñi ña ci toppaat mooy ñi ci gënaat bu ñoo ñëwee ña ca gënati ñoo ciy topp kenn ku ci nekk bu ñu la doon nekk dundam ak fi mu jaar nga xam ne ñu toll lañu ba tey bu ñu ko seetee ci ku mënul awliya yi itam seen coono boo ko seetee xam ne nitu kese mënu ko dékku te dañuy àgg seen borom foo xam ne lu ñu def ci lu baax fàtte nañ ko sàmm bi nga xam ne moom la ñu di sàmm seen lépp ba set wecc boo xam ne wax wu ne mën nañoo gis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ak moom umpale dara laaj ko si ngeen bu ngeen jàngee werante yi ñu daan werante ci gànnaar te ñu bind sëñ Tuubaa di ko laaj diggante Ahmad ibnu Hanbal ak Wuld Fatan te kii évoqué waxi Cheikh Ahmad Tidiane kii évoqué waxi limaamul Ghazali radiallahu taala anhuma bii sëñ bi di tontu wax na ne kii bind xaraf yii bi mu koy bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam dox na ba agsi ci moom tiim ko ne ko Ghazali yi ak Tidiane yi ak Sanusi yi wuute wuñu nit ñee wuute ñoom dañoo tëral nit ñi seen place rek dañu leen a teg seen ñaan nit ñu ci nekk dañu leen a teg seen place loolu moo nirale mel na seen wax yi dafa wuute waaye wuutewul foofu mu xam le fa ne xuus ci tawxid danger la bu mag a mag a mag a mag ndax nit ki waxtu woo xam ne mu ngi génn àdduna li mu façon pas-pasam yépp gannaaw bu ay jëfam rombee mel na film mu jàlloog ñoom pas-pasam mooy lii gën a fees bu fekkee ne pas-pas bi ci lenn ci tawxid am na ci loo xam ne wuute naag lii dëgg ndax jamono boobu fakka chef na am te xitaaka day tàmbali fu basiko li ma xadib yi dañuy muri kiiraay yépp ngay jànloog xaqaayiq yi di jànloog secret yépp nga gis ne yow pas-pas bii nga façon ci suñu borom ni nga ko fase woon bu noonu da nga tiit ñaaw njort ci sa bopp te yoxsel mo maru ala ma mata alayhi te nit ki ci xaala bi mu deewee rek ci lañ koy fange maanaam ci lay dekkee yamal xiyaam loolu moo tax dee ba tey ñu bari ragal ko ndax xamuloo ci lu mu lay fekk bu la fekkee ci xalaat yu ñaaw wala xalaat yu dul dëgg wala xalaat yu tooñ te noonu ngay dekkee bu dul yërmande yàlla rek xatar la yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi nit ki ca la mu deewee rek lañ koy dekkale ca lañ koy fange bis penc ba mu jëm ca bërëbu taxawaay ba wa yamutu mar'u ala ma asha alayhi kon ñu sonn lañu ndax lu tax bu dee sa bopp rek nga bëgg a xettali doy na coono yàlla fegal la nag sa coonoy bopp waaye coono mbindeef yu bare bare bare bare nga bëgg a xettali yan la bu tegu ci yow te waxuma la dara waaye jullit buy doom aadama am yéene ju rafet ci yow gëm la ñoo ziyaare la yëkkati alalam jox la te la tax mu jox la ko nekkul ci yow doy na musiba naaru laay ndax ñaqu gor lekk ko ci yàlla bari na yërmande wala bari naa xam-xam wala nit ñi rafet na njort ci man wala lu mu doon rek erreur bu mag a mag a mag a mag la xaddiyee sax ci bopp moom lekk ko ay charte la am garab boo toog na nga xam xob yenn mu toll na nga xam reen yenn mu toll foo toll mën ngaa àtte jën yi xeex ca géej ga lu ko ëpp ak lu ko ëpp loolu sax lu tuuti la ci moo tax ñu ne rubba xabri ñuy zaar wa saaxibu fi naar faral naa koy nettali bari na bàmmeel bu ñuy ziyaare ji te borom nga ca safara waaw gën la yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom affaire bi dina gudd de dana dana dana bari mu ñu doon laaj mu ñu waaw wëccan nañ bu ci laaj waaw bu ci kanam bu tuddee rek ngeen ma xam maa la dañu leen ngeen laajee séeguma sax ci mbir yi xale yu jeunesse bi gàttal boobu ñu ñu tëbboog lu bari ndax waxtu waa ngi dem te nee ñu dañoo prévoir ay laaj yoo xam ne gis jow ñu tontu ci suñu kem kattan ndax fi tàmbali rek laa defa dund waaw bil rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan suñu borom dafa wax yonent bi alayhi salatu wasalaam wool doomu aadama yépp jëme leen ci yoonu yàlla ku bañ ak ku nangu wool ñëpp am nga lay yow sa jaan wàcc na xamal leen lépp loo xam ne lii sant naa la ne la xamal leen ko ndax war nañ koo xam boo ay nit ñëwee di dàggeeg yow di weranteeg yow ni sa jikko ji rafete rafetalal say wax yombalal sa bopp amal siyaasa boo xam ne da nga mën a wommat nit ki ndànk te doo jam say sentiment maanaam doo ko tax mu ñëkk mu ñëkk ba sax ci li mu doon nekk wala mu dëgër ci na nga xam xikma bu baax nga woo leen ci ndax seytaane dafa am yoo xam ne jinne lañu am seytaane yoo xam ne nit lañu am seytaane yoo xam ne ay ruux kese yu lëndëm yu saay-saay lañu doon seytaane yi nga xam ne ay ruux rek mu mel nañu ànd ak ngelaw li di dem am na lu ñu ragal seytaane yi nga xam ne ci ay jinne lañu te suñu borom jox leen jikkoy seytaane ak meloy seytaane xëy leen ci jëfi seytaane moo gën a néew mbir seytaane yi nga xam ne ay nit lañu ñoom day inna kayda kunna azimun wane na ci benn aspect waaye ñoom it mën nañu lu ñaar ñoo mënul ñett ñooñu kenn ku ci ne am nga loo man sa morom mënu ko loolu lépp tax na doomu aadama bi di war a delloo si xelam fu mu toll di war a delloo si xelam fu mu toll te li ñu yées ci doomu aadama mooy li nga albataala waa ziveté nit ki deful dara te toog loxoy neen waxtaan rek waxtaan wi waxtaan wi adduna rek boo toogee yow dong dal di wéet dem seeti foo waxtaane ji ak koo waxtaanal atta nga dem di bële wala ngay dem la wala ngay defi yeneen yoo xam ne tàmm nga ko ca ba ngay xaleel ba mënatoo koo bàyyi te ab dundu doomu aadama neenal ci benn waxtu perte la boo xam ne doomu aadama bi bu yemul xel buñ ko ko wanee dana ko jooye jooye jooye jooye bu nga yërëm ko bët yi dañuy seede yomal xiyam jamono yi dinu seede yomal xiyam jaww ji dinu seede yomal xiyam malaayka yi dinu seede yomal xiyam kon ñu war a seetaat suñu bopp ci yu bari li ma wax nag ne al bataala te moo di neenal jamono bàyyi jamono mu passé jëfuloo ci lu lay jëriñ ci adduna jëfuloo ci lu lay jëriñ àllaaxira perte magu ko ndax lan seytaane ngay ngay berse maanaam seytaane moom ngay fowe di ko tëgal ma fekk na moom moo lay fowe seytaane moom moo lay fowe ni ngay fowe liir bi doxal fii puusal pion bi tegal lii ah malaayika yaa ngi lay photo ñu ngi lay filmer rek malaayka yi ñoo raw cinéaste yi raw cinéaste yi ndax dañuy foto biir ak biti dañuy filmer biir ak biti ak xol ak yëngu-yënguy xol yi ak ca la mu jëm ak yéene ji nit ki kon loolu lépp day feeñ yamal xiyaam yamal xiyaam nag suñu borom tabaraka wa taala jaam bu nekk dana wéeteeg yow yéen ñaar dong ba mu fab poojam teg ci sa pooj loolu ba ta leeral ndax suñu borom buñ ko joxee pooj dañuy wax ak ay doomu aadama yoo xam ne bu ñu dee bu ñu leen bëggee xamal kii wax ak yow wax joo xam ne secret la yéen ñaar dong ko bokk te bëggul keneen yëg ko ni ñu ko faralee ni ñu ko tàmmee gisee ci seen dund gii ci àdduna ñoom ñii nit loolu tax ñu waxee ko noonu waaye suñu borom mooy mi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxee ne yomal xiyaam bu nee aadama wàllu safara génne ko ci sa sët yi ci bu ñu dul jeex sànni ci safara safara daan zib nii zib nii zib nii dolli ma dolli ma dolli ma mu mel ne ponkal moom mu xiif gis ndabi ñam yi te jotu ñu ca muy laaj ci bët lu dul jeex jox ko téeméer bu ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent wala junni bu ne juróom-ñeent téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñëpp safara par benn benn yooyu àjjana ba ñu ko war a jox jeex mu ne suñu borom dolli ma béyal ma suñu borom tabaraka wa taala fab tànkam ne ko ñeej ci safara safara fit bi naaw mu ñaran koo ni der wow nga sànni ci taal bi naan xat xat xat doy na doy na doy na doy na dañoo wax tànk tuddee ko suñu borom ndax li nga xam ne nit la ñuy waxal te nit bu doon def lu mel noonu noonu la koy defee waaye suñu borom tabaraka wa taala kenn du ko melale wenn melaw nit wala beneen bindeef mu ne wala bi lenn loo xalaat ci sax xel rek suñu borom wuute naag loolu moo tax suñu borom du ko def jëmm bu ko def jëmm bu ko def bu ko jox cër bu ko jox lenn ci li nga xam ne doomu aadama meloo woon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne saxaaba yi na ngeen waaru ci kéemaanam yi ak jëfam yi ak xikamam yi waaye bu leen xalaat mukk ci jëmmam jë ndax du ngeen ko jox xaqam la mu yeeyoo mukk mënu leen ko xalaat ndax lépp loo xalaat rek suñu borom wuute naag loolu ñu toll ci adduna jamono lu sax la lu wéy la waaye luy évoluer la luy soppi la luy soppi ko la jamono dara mu mel na tàkktoor dara mënu koo gën a soppi ko kon doomu aadama bi ci nekk war na am culture spirituelle boo xam ne moo koy sàmm moo koy fegal moom lay jiital mu nekk làmp ci lëndëm gu tal gi ba du dëgg fu koy lor loolu lépp lislaam daf ko jàngale damaa dama bi bokk adduna bi mu nekk ban wax ko jëf sept heures waaw ni mën nga commencé laaj yi aji rek bu ñu laajee rek lu ñu ci mën a tontu insha allah asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah laaj bi njëkk bu ko laaj laaju tasawuf la laaj dafa ne lan la ñuy teqalee lu ñu mën a teqalee ak lan mooy wuutab diggante martaba wali yi martaba bu wax xutb bu wax xawsu bu wax badal di foofu la ñett yooyu.
waaw martabatu wal yi ak badal. xaw ak ak daal ak aw daal mooy seen.
waaw ak watad lan mooy seen taqale. bu nee xutbu rek mën na nekk badal mën nekk xutbul xaw wax bu ñu ko dee jama maanaam def ko pluriel naan al abdaal naan al aqtaab xutbu yi. te xutbu xaw si moom benn rek lay doon ci jamono ba jóge fi beneen mën a am waaye feeg mu ngi fi benn martaba dong la boo xam ne kenn ci toog kon bu ñu ko dee def tudde ko mbooloo anam pluriel al abdal al al aqtab dafa am tajawuz bu ci nekk moo di badal yi la ñuy wax al aqtab ñu tàmbalee leeral ci awtaad awtaad ak abdal awtaad mbooloo la watat mooy benn abdal turu mbooloo la badal mooy benn aqtaab mbooloo la al qutb mooy kenn al axwaas mbooloo la benn rek mooy xaws daa ñu wax nag al qutb al xaws mooy benn xutb bi nga xam ne moo atte jamono lu tasawuf mel ni lépp lu jóge si borom tabaraka wa taala di jëm ci jaam mu di ak may mu di ak texe mu di martaba mu di lu mu doon ci loxo xundul xaws bi lay jaar mooy atte jamono bi adduna bépp a ngi mel ci moom ne fépp dugub woo teg ci sa kaw tënk di jàlloog moom cheikh abdul aziz dabaax radiallahu anhu nee na mun nga sax bala ngay rey janax ci ndigal xundul xaws bi lay doon suñ borom day boole daf koy booleel mboolem maqaama yi ci mbindeef lépp seen i maqaama ak wàllu lépp seen i maqaama siddiqoona yi ak aarifoona yi ak ñoom ñu tuddoon ñëpp seen i maqaama lépp daf koy boole ci benn maqaamaam nga xam ne waxtu teewoo ca diiwaan ba li ko te suuf di waxee wàllu yi yàlla yi teew kenn ku ci yëkkati sa loxo ci lu dul ndigalam mën nga caa yàqulee ci ni mu gën a gàtt daal mooy kenn koo xam ne mooy seetukaayu suñu borom ci jàmm yi kon may jure la am bërëb bi dafa xat ak waxtu yi ne kon fañ tàmbalee ci de xutb xutb ak lu tax ak lu ko jiitoon li am ak wuute daanu ci jaar xutb bi bu fi jógee te mënu la ñàkk ci jamono am na ku ñuy wax al wakil ci wàllu yii la kenn la ku sës ci moom moom moo koy wuutu wakil boobu bu fi jógee am na war na am ku ko wuutu am na ñuy wax al imaamaani ñaari yilimaan yi ñaari njiit yu mag yi kenn si ñoom la ñuy fab mu nekk wakil mu wuutu ko bu ko defee ñaari imaam yooyu nga xam ne ñaar rek la ñuy war a doon benn fay nekk ñu fab ci awtaat yi kenn mu remplacé ko bu ko defee awtaar yi ñeent ñi doonoon manque ñu fab ci abdal yi kenn remplacé ko abdal yi nag badal dafa am ay charte jëmm lay doon joo xam ne ñoom abdal yi dañuy séddoo jamono ji kenn ku nekk la yàlla def sa kilifteef yenu fa nga xam ne dëkk bi nga nekk la nga fay warlu la nga fay protéger te nit ñi duñ ko xam boo ko jógee woon di dem feneen mën ngaa soppi ko bëre ni sa sa jëmm ñaari jëmm jenn ji dem ki ci des ne fi ñu kenn du xam ndax dem nga wala dem ndax day doon secret bu yàlla nëbb bu ko defee kenn du xam ne jóge na fii jëpp jëm beneen bërëb wala dem nga beneen bërëb du faatoo itam noonu ma ko waxee rek kon ñooñu noonu la seen marque bi ëppantee kon bu moom wax xaws bu xaws waaye nag bu ñu ne aqtaab ak daal yi la ñuy wax awtaat yi bu xut bu jógee al wakil wakil bu jógee al imaamaani gannaaw imaamaani yi aw taat yi ñeent la ñu doon bis jógee ab daal yi juróom-ñaar la ñu doon ci jamono loolu mooy hiérarchie bi nga xam ne moom la ahlu tasawuf concevoir di ko wane secret yi nga xam ne suñu borom dana ko def ci jaam ñi ci adduna ndax xam ngeen ne suñu borom tabaraka wa taala nee na dara lépp lu baax am na secret bu tax mu baax fa secret ba yem la baax day yem am na moom ci boppam ay secret yoo xam ne fokk mu dénk ko ay jaam ci kaw suuf la nekk ndax suñu borom dafa sàkk xalifa ci kaw suuf ba mu ko yónnee xalifa bi njëkk di aadama ñi ñëw ñëpp di ay yonent waaye ku ci nekk da ngay taxaw yaay xalifa da ngaa wuutu aadama ci lu dul nubuwwa ci même dikkee représenté suñu borom ci même ko mën a représenté ñu wax alxaji masal yi ñu laay fil ardi loolu moo tax secret yooyu ñu séddale ko jaam ñooñu nga xam ne daanaka kenn ci jiitu rek xaw na mën a àttan lépp waaye benn jëmm yooyu ñu séddale ko jëmm yooyu ci kenn ku nekk la nga àttan ñu jox la ko ci jamono ji moo xat wuti bu ko waaye kon ñu bari ñu xamul na mu demee ak ñu koy weddi daañu leen jox ay tegtal yu leer ci sharia ci ci biir l'islam yoo xam ne lu dëgëra dëgër lay doon loo xam ne duran ñaareelu laaj bi moo la waaw ñaareel bi kii dafay laaj ne ndax mën nañoo yar xale en dehors de l'état islamique ci état boo xam ne du état islamique mën nañ ci yar xale mooy ko demee bu njëkk bi mu ne ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañ jàngal ñu faatu alquran ci almeer yi ci ci bàmmeel yi ak ci kër yi bu njëkk bi ñu njëkk mooy ndax mën nañoo yar xale ah waaw un état boo xam ne du état islamique waaw waaw loolu kay yomb na bu amee ay yarkat ndax jaam bu ne su moom dafa teg ci sa kaw waru gar devoir boo xam ne
sañ loo koo dindi ndax état bu mu doon dafa am wàll ak fa muy yem état di dugg ci biir néegu nit ki du dox diggante nit ki ak doomam nit ki kay ak farloom ak ñàkk farloom sàgganam ak xamam ak ñàkk xamam boo woyefal yiwum layoo bi doomam di layoo moom ëllëg ak laaj bi ñu koy laaj ay mbirum mbiri xale bi ñu di ko dañ ko koy laaj ba ba muy nekk mu kàllaf bu boobaa nag xale bi ci boppam moom la ñuy laaj ay mbiram di di di ko laaj waajuram waaye fekk ak bu toog waajuram lañ koy laaj bu fekkonte ne seetlu état islamique yi ci àdduna bariwuñu waaye jullit ñi kenn xamul ni ñu toll état yi nga xam ne ay yéefar rek ñoo constitué neuf dixième yëpp sax ay jullit a nga fa di def seen war a jullit def seen war a jullit ndax xale bi li mu li mu war loog papa ji benn bu juddoo na ko tudde turu bu baax turu lislaam na koy dundalee mu dagal bu ma tee dal jàng na ko jàngal na ko yar ak yoon nag yu soof soowaan yu bare bari yoo xam ne ba tey soxlawul di sa jaar yooyu bu ko defee état bi na nekk islamique na nekk laïque na nekk lu mu doon ak du ko neex waaye moom waru garam la moom loolu rien ne s'y oppose kenn néew bu ko def dafa war a xam ndax ne waru garam la mu di ko def kooku moom mooy ci sama xalaat mooy loolu waaw bu ñaare bu modèle la def dañuy ànd yomal xiyam ba ka ca ëpp doole ëpp ca influence mooy jiit nekk imam ba yomal na doo ko la onaatul imam yi ba ma wax ne même musiciens yi ki ci dàq musique gën cee siiw bu ñu wootee musique kat yi mooy jiit yi ci des topp ci lu ko waral niroo gi ñu niroo ay jikko bokk gi ñu bokk lu ñu bëgg bu ñu woowee jullikat yi ki dàq julli mooy jiitu ñi ci topp ñëpp tegu ci bu ñu wooxee itam woorkat yi ka dàqa woor bu ñu wooxee ajkat yi ki dàqa aj bu ñu wooxee xalaatkat yi ñu médité suñu borom ka dàqa médité bu ñu wooxee suñu borom ka dàqa fecc bu bu wooxee fecckat yi ka dàqa fecc bu wooxee ak képp ku mu woo ñu ko misaale kon ki nga xam ne almar uma amal ahabba da nga ko sopp te mu bokk ci ruu yi gën a texe texeem googee moo leeral sa kanam ndax munaasaba bi ngeen am maanaam ni ngeen xeetoo ci kaw bëgg gi nga ko bëgg bëgg day xëcc moo tax ñu bëgg ziyaara bu bari ak xa- ak waxtaane lu bari ak fàttaliku lu bari fat am na ci yoo xam ne ni ma ko waxoon rek bu ma ko waxee même yéen ñi nga xam ne murid ngeen mën ngeen a gëm daanaka lu ne ci sëñ Tuubaa sax dana doy waat ci yéen lu ci bari danaa ko jub duma ci àgg ndax dañ koy nettaliwaat ñooñe duñ xam na mu demee ñu gise ko neneen waxe ko neneen te fekk na du noonu waaye suñ borom def na ay secret yu rëy rëy ci ay jaam xam ne du lu ñuy waxtaane ñu ko jox sax waxuñu ko waxuma laat ñi nga xam ne joxuñu leen ko kon yow mu wajhu ladi yuhibbuna yow yow yow yow da ku koy sikki sàkk da nga sa xam-xama ci àggul da nga xamul lu bari waaye boo ja jeexee xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek almar maanaam ma aman ahaba rek dana la xamal lu bare bare bare bari ci nga xam ne cofeel moom ci ki nga sopp rek nag ci ki nga sopp ak na mu mel ak la mu doon ak la mu la ëppale ba nga sopp ko xeetoo gi nga xeetoo moom ndax cofeel bi bëgg la ko nga xam ne moom nga ko bëgg niroo bi nga niroo moom si jikko yi moo tax taali bi sax ki ci gën a roy sëriñ bi mooy njëkk a taq ci sëriñ bi mooy njëkk a taq ci yow bu bu dee ramu ci yow lay tàmbalee sopp yooyu suñu joxe sa lépp ngir yàlla ki ñu ko jox gëm gi ñu ko gëm sopp gi ñu ko sopp rafet njort nga rafet jàpp ci moom ne kii kat ku am yàlla suñu boroom sopp la ku mu bëgg la ku mu teral la ku mu beral loxo la yow su bopp wàcc boobu nga wàcc sa bopp yàlla tax ndax bu dul woon yàlla boo xamoon ne amul yàlla ki moo tax ñuy wax ne jaamu nit ñàkk xam la nit ki ki mu nangoo nekk jaamam jaam bu ma ko waxee waxuma jaamu di ko jaamu ni ñuy jaamoo yàlla maanaam jox ko sa bopp toujours ma misaal ko yàlla tax kon yàlla nga bëgg yàlla nga jaamu jaamu woo nit ki bu dee gëm nga ko gëm koo xam ne lu mu la wax rek doo ci jàng dénge loo am at nga koo jox lépp bu la ne woon bul añ doo añ ñi nga xam ne bu la ko médecin bi teree nan nga koy bañ a defee bëgg googu nga ko bëgg gëm googu nga ko gëm wóolu googu nga ko wóolu xam ne yàlla doo nga tax ndax bu la wóolu ne amul yàlla da nga koy romb fële kon yàlla nga bëgg kon yàlla nga bëgg kon loola tax bëgg am doole amul kenn koo xam ne nee nga dama bëgg sëñ Tuubaa te yàlla taxul ndax am gi mu am yàlla du séenu ko ci moom moo tax nga bëgg ko kon yàlla nga bëgg kon bëgg sëriñ lu ama am bëgg lépp loo xam ne da nga caa yaakaar yàlla bëgg yàlla la te bëgg yàlla nag comme àgg ndax ku ñu wax nu ay maan radiallahu taala anhu ci saxaaba yi la bokkoon dafa nekkoon koo xam ne ci zahir def daan daanaka lu ko neex li jëfandikoo daan naan ndox mi ñuy tere ak yépp ñu duma ko nangam yoon ci naan ndox mi ñu tere benn bis benn waaye di ko rëbb yonente bi salaam dikk ni ko ji bu ko waxati mukk ku bëgg yàlla la xam nga de kon bëgg yàlla moom am na martaba bu sori ci yàlla ki bëgg yàlla moom ëpp naa rëbb ëpp naa xas ëpp naa ñaawal ëpp naa garab boo tax nit doomu aadama yi ku ne na rafet ci sa morom njort ku ne na wattandiko sa wattandikoo tooñ sa morom ku nekk na nga yéene sa morom li nga yéene sa bopp nooy maan moom du julli bu bari bu mu julli saxaaba yi gis ko wala koor wala yeneen yi nga xam ne moom la sàmm bi waxoon yépp waaye bëgg gi mu bëgg yàlla ci xolam bëgg gi mu bëgg yàlla ci xolam tax na bi nga xamee ne waa jooju rëbb na ko yonent bi sal bi sama ci ëpp naa wax ko wax ci mukk ku bëgg yàlla la kon bëgg yàlla capital la bu mag a mag a mag loo ca dolli rek mu gën a ti lépp loo bëgg nag ngir yàlla bëgg nga yàlla loo xam ne yàlla tax nga bëgg ko bu bu ca dara ci yàlla nekk loolu doo ko bëgg kon yàlla nga bëgg asalaamaaleykum wa rahmatulah